baax euh, OMG naka mu. ça va maa ngi fi may. dëggoo na moon baax a baax waaw raw naa leen nag bu baax a baax. single yi di génn rek nga bàyyi ñu noon ñëwoo seet. waaw gis nga non dama leen di seet si parce que am na single bu génn tey bu bees donc dinaa leen seet si. ak Dip ngeen def single. collaboration bi nu mu def. waaw collaboration bi man maa def son bi donc après euh, j'ai voulu inviter Dip Doundou Guiss mu nekk nit boo xamante ne wàcce boppam humble donc quand je l'ai contacté vraiment déjà on avait déjà des des relations donc ba ma ko woowee wax ko ko mu ne ma ummi loolu dama ciy bëgg a participer daf may neex ma participer ci donc c'est c'est venu comme ça ma envoyé ko son bi mu ñëw studio ñu liggéey ko ensemble. son bi nu mu demee ak thème. yëngal ci say mbagg waaw chanson d'amour la comme ni nga ko déggee donc euh, tey nekk 14 février ñu war a célébrer amour war a wax ci mbëggeel euh, moo waral ñu jëm ñu jël thème bu mel noonu ne yëngal ci say mbagg mooy boo amee ki nga xamante ne moom nga bëgg euh, mu lay bégal di di def lépp li war ci ci ci yow donc da ko war di feccal di yëngal ci say mbagg yoon la nga feccal ko waaw. alors dañuy retourner en arrière de singles yoo xam ne génn nag cartonné sénégalais yi bëgg ko nan nga ko dundee. waaw muy euh, déjà euh, Lucy Sayon ak bàyyil mu sedd donc Lucy Sayon je pense que ne euh, succès bi mu am waaw xawoon na ma sax bett xalaatewu ma ko woon foofu mais ba ma génnee premier jour ba ma demee concert joué ko une semaine juste après sortie bi Euh, j'étais vraiment très très très contente parce que xaaroon na peut-être mu am succès mais pas à ce point ba Sénégal Ndiaye bépp di ko way ñëpp di ko reprendre xale yi di ko reprendre ñëpp di ko di ko way am ko seen téléphone donc c'était vraiment une fierté un plaisir euh, d'avoir accompli quelque chose voilà beneen single bi sa yoon après nga génn la. bàyyil mu sedd bàyyil mu sedd également bàyyil mu sedd son xale yi la j'ai remarqué vraiment que xale yi bëgg nañ son boobu e son boo xamante ne xale yi bëgg nañ ko it la mën nañ jàpp ne it la donc euh, mu nekk loo xamante ne c'est des sons aussi yoo xamante ne ay thèmes la donc euh, muy muy muy. muy euh, dundal ku nekk ku nekk di ko dund ah, ñu gis ko ci suñu société di ko wax di parce que artiste aussi loolu la am problème day am wala mu gis loo xamante ne nii nii du jaaduwul mu wax ko mu woy ko donc lu ci sa yoon nekk loo xamante ne dañuy wax rek gars yi ñu gën a màndu bàyyil mu sedd di euh, di wax nit ñi aussi que ne dund li ñu doon nañ wane li ñu doon et nekk li ñu doon tu vois que il faut pas s'inventer une vie parce que quand tu t'inventes une vie da ngay sa bopp donc c'est des chansons yoo xamante ne day conseiller nit ñi euh, dafay wax nit ñi ñu revenir à de meilleurs sentiments en fait. mu mel ni terme bu ñëpp utiliser la ñu ne la bàyyi mu Fédération. na nga gisee loolu ñu koy utiliser terme boo xam ne. ah waaw je pense que ne sa ça apaise voilà ça apaise les choses ah parce que tey li taxoon sax ma gën a xalaat bàyyil mu sedd mooy situation bi ñu gis ci tali bi. tu vois yow nekk une personne calme une personne boo xamante ne bëri woo problème mais tey nga tegu ci tali bi par exemple rencontre ay situation yoo xamante ne da lay énervé loo nga mer ba peut-être nga xeex ak nit mën nga waaw mën na mën nga xeex nit wala nga ray nit sans sans faire exprès tu vois donc terme bàyyil bi pour wax gars yi nañ gën a calme nañ euh, bu la bu la nit yóbbu ci extrême tu vois quand tu es une personne calme quand tu une personne boo xamante ne ni doo dugg ci yenn affaires yi bu situation wala bu environnement bi nga nekk tax nga koy changer voilà. xale yi ñu la bëgg lañu dañ lay déglu xale yu ndaw yi damay gis sa statut lu bëri mais euh, lu ñuy dund temps gis nañ benn xale bu ñu rey ah, ligoté ko xam nga est-ce que am nga son boo xam typiquement c'est pour les waaw déjà euh, j'ai j'ai un son que j'ai fait en 2015 ou boo xamante ne touche pas à ma la tudd donc pour parler un peu de violence yi nga xamante ne ñi ngi koy teg xale yi xale bu ndaw da koy gis bu am 11 euh, ans 12 ans ñu violé ko mu ëmb ya jàngam yàqu donc euh, am situation yoo xamante ne wax naa tamit ci excision donc soo son boobu dafa regrouper loolu lépp donc man boo ma xamee xam nga ne je suis une chanteuse boo xamante ne damay wax ci lépp loo xamante ne ça touche à la femme et aussi à l'enfant mais particulièrement à la femme donc tey xale xale yi jigéen ñi li ñuy dund métti na ma torop et tout le temps dama koy ñaxtu ci sama réseaux sociaux yi da ngay xëy dégg ne rey nañ tele femme wala rey nañ xale bu ndaw bu jigéen euh, j'ai vu hier euh, que am na benn fillette bu am 3 4 ans moo xamante ne dañ ko violé ligoté ko rey ko mu dee loolu c'est des situation yoo xamante ne dañ ci war a jug te jigéen ñi dañ ci war a wax mais góor ñi également dañ ci war a wax parce que góor ñi tey Euh, je pense que ne seen moroomu góor déglu leen moo ñu wax ak seen moroomu góor mooy gën a am impact que ñun ñuy jóg di wax ak góor ñi parce que chaque fois jigéen ñi buñu ñu di wax dañ naan waaye c'est des féministes c'est des combats de femmes et cetera affaire yooyu donc du ñu jox euh, exactement li ñu waroon voilà du ñu jox dëgg bi wala ni ñu waroon dégloo du ñu ko dégloo donc tey góor ñi bu ñu jógee dooleel ñu bu ñu jógee nekk côte à côte si suñu wet ñuy xeex ak ñun di wax ak seen moroomu góor yi je pense que ne combat bi dina gën a am ampleur dernière question ba ñu defee interview a Sénégal da nga ne ma woon da nga travailler da ngay travailler sa image bu nit ñi gën la xàmmee tey OMG fu mu romb dinañ xam ne OMG la tu l'as réussi. bien sûr euh, comme li ma wax rek xam nga nee naa la euh, musique étape la. du course de vitesse course de fond la et tey jii nit ki booy def da ngay liggéey di def état par étape par par pas donc parce que bu ñuy wax carrière la ñu wax carrière dafa yàgg. te carrière ay objectifs la différents objectifs chaque année donc waxoon naa la ko kene on travaille sur l'image de OMG tey réussir nañ ba tey ñëpp xàmmee nañ OMG am na benn style boo xamante ne xàmmee nañ ko OMG donc te loolu c'est un travail qui a été fait en amont et ñi ngi def leneen loo xamante ne tey day permettre ñu yóbbu nag suñu musique feneen ñu yóbbu ko biir Afrique yóbbu ko biir euh, def ko mu international parce que je pense que ne li ñu doon wër Sénégal am nañ ko mooy ñëpp xam kan mooy OMG xam ko xàmmee ko xam musique am je pense qu'on l'a réussi maintenant on est à une autre étape. léegi rap bi xanaa yow kese yaa fi jigéen jigéen ñi yow rappeurs yi yow kese si gis <laughs> rappeurs yi chanteuse gis de. non non non il a énormément ya a énormément de chanteuses il y a énormément de. de de rappeuses yu fi nekk yoo xamante ne peut-être amaana euh, visibilité bi OMG am amuñu ko mais comme li ma wax rek euh, nit ki liggéey rek ngay def non <laughs> non non non non accaparé wu ma dara man li ma lay wax mooy que ne liggéey la rek et que chaque personne ak temps jarul yaakam si donc tey jii beneen jigéen war na mën a am visibilité te loolu ñun dañ si jàpp ñun dañ siy liggéey euh, am nañ association boo xamante ne gën ji hip hop la tudd ñi ngi liggéey ci loolu pour aider jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir culture urbaine à ce que ñu am visibilité bi bi war parce que c'est très compliqué quand on est une femme dans les cultures urbaines waxoon naa ko fi et j'ai continué à le dire c'est très très compliqué mais ñun ñi ngi si ginnaaw ñu ngi jéem a def dara ñi ñun ñi nga xamante ne ñi ngi ci kanam ñu ngi jéem a def dara pour suñu petite sœur yi nga xamante ne ñi ngi ci ginnaaw et que ngi ñëw. ñu ngi merci beaucoup. ci <laughs> <laughs> ah, ñëw <laughs> mën gi <laughs>